su fekkee dafa àgg woon waaw mbaa yaa nag ba nga dagg waaw ga mbaa yaa ga ndax jokk ba nga cay jokk yaawul muxaatabati wala waawul jamaahati kon foofu lay am teqale gannaaw boo daggee waaw gam ràgge woon mbaa yaa gam ràgge woon faw la jiitu yaawul muxaatabati moom da nga koy kasara te la jiitu waawul jamaahati moom da nga koy dàmm niki boo seetloo tubb dii da nga feeñal dafa ràgge yaa boo xoolee tadduxoo da nga woote dafa ràgge waaw léegi nag boo ci doon jokk yaa ul muxaatabati da nga dagg yaa jëja tubb dii dagg waaw ga ca tadduxoo waaye boo jokkee yaa moom la jiitu yaa ga day kasara moo tolloog anti tubb diina ca mudaarihuma ak ab dii ca lamarja te nag soo jokkee waaw mboolu mu góor moom moo xam ca mudaarihuma la niki almuxlisoona yadduxoona ak ca lamarja niki bi nga ne udduxoo woote leen gum ci mën doon yadduxoona ji nga wax dagg nga waaw gi fi cosaanoo woon waaw gi fi nekk léegi moom mooy faayil ji waaw gi fi njëkkan nekk dagg na waaye gis nga li jiitu waaw gi dafa maas maas ko lonk boo ne udduxoon lamar ba it waaw gi fi njëkkan a cosaanu dagg nga ko gi fi nekk léegi mooy faayil ji muy udduxoo woote leen waaye gis nga li jiitu waaw gi moom day dàmm al mudaarix mudaarixuma an naaqisu may naaqis allasi ma nga xam ne aaxiruhu mu jëm alifun alif la ida usnida ndéem wéereef na ko ila alifil isnayni jëm ci alifuk ñaar aw nuunin niswati wala nuunuk mbooloo mu jigéen xulli bat walbateef alifuhu alifam nga yaa an muy yaa mudaarixuma bu fekkee dafa ràggi alif da nga bëgg cee jokk alif gi dellu ci ñaar mbaa nuunuk mbooloo mu jigéen alif gam ràgge woon da nga koy soppi yaa ni ki antuma tas xayaani ca mudaarihuma wala alwala daani yas xayaani xam nga tas xa ak yas xa la nekkoon nga soppi alif ga yaa door caa jokk nag ci mudaarihuma alif ak nuun bi antuma tas xayaani wala huma yas xayaani boo ci dee jokk ba tey nuun niswati mooy bi nga ne alfatayaatu yes xay na yes xaa la doonoon alif ga nga soppi ko muy yaa daal ci jokk na muy dellu ci mbooloo mu jigéen ma kooku mooy mudaarihu ba lamar ba itam mooy is xay na is xaa la doonoon bu dee lamar ñaar ñi nga wëlbati alif muy yaa nga jokk ci alif gi nga xam ne mooy faaxil wane ne ñaar ngay digal mu isxayaa dox leen yéen ñaar mbaa jëf leen yéen ñaar bu dee mbooloo mu jigéen mi isxaa ba soppi alif ko muy yaa mu soppi ko isxay nga jokk ci na anak al mudaarihu mudaarihuma an naaqisu may naaqis allësi ma nga xam ne aaxiruhu mu jëm yaa un yaa la aw waawun wala waaw la ida usnida nde wéeréef na ko ila alifil isnayni jëm ci alifuk ñaar aw nuunin niswati wala noonu mbooloo mu jigéen lam yax dus du xew fii ci moom tax yirun genn ak soppi mu daarif ma nga xam ne dafa ràgge waaw mbaa yaa boo ci dee jokk alif ñaar mbaa noonu mbooloo mu jigéen moom nam na lan doo ci soppi dara bu dee mu daarifuma da ngay jokk rekk alifam noon te nag la jiitu alif ga moom faawu fataa lay doon bu dee lamar ba it booy jokk alif ga faaw la jiitu alif ga da nga koy fataa diki bi nga ne udduwaa ak bi nga ne abdiyaa ak bi nga ne alwaladaani yubdiyaani ak bi nga ne alwaladaani yadduwaani ak ba nga ne udduwaa ca lamar ba seetlu nga loolu booy jokk nag nuunu niswati noonu mbooloo mu jigéen faaw la jiitu noonu nga dañ koy binaa ci sukkoon ndax mudaarixu boo tokki nunu nisooti dañ ko daal di binaa ci sukkoon kenn du ko ihrabati waaw gaag yaaga nag ñàkk ñàkk maas mooy seenuk sukkoon bu ñëw ci tamarin yi at tamrin al awwal bayin leeralal fil jumali ci jumla yi al aatiyati aji dikk al afxaala fixaliya al mudaarixata yade ay mudaari allati ya nga xam ne xulibat walbateef na alifuha seen alif yaa an muy yaa wallati ak ya nga xam ne xusifa daggeef na fiihaa ci ñoom xarful xillati arafu ràgg wa wallati ak ya nga xam ne lam yuf dis susut fiihaa ci ñoom al isnaadu wéer ga tax yiran genn soppi jumla yi bëgg a dikk da nga ci gis ay fiilu mudaari yoo xam ne seen alif dañ ko wëlbati yaa dana ci am yoo xam ne dañoo dagg arafu ràgg ba dana ci am yoo xam ne bañ ci jokkee damir taxul dara soppiku ca taxul dara soppiku ca yooyu la bëgg nga leeral leen at talaamiidu elew ya yaaduuna danañu daw fi maydaani sibaaxi ci yoonu njëkkante ga maydaan moom la ñuy wax bulwaar ak sibaax nag mooy rawante al ummahaatu yaay ya yus diina danañu garay maanaam danañu jox an nasihata ab laabire li awlaadihinna ñeel seeni doom asamsu jant ba wal xamru ak weer wa yajriyaani danañu daw bi miqdaarin ci tollale bi yàlla iqdoo fay leen xaqaman aqi ka nga xam ne ahsana rafetal na ilaykum jëm ci yéen iqdoo lamar la ñu ci digal mbooloo mu góor xam ne kon jokk nañ ci waaw moom nag biñ ci jokkee waaw dañoo dagg yàgg nekkoon ca mujj ga ndax moom man xoos la xadaa yaqad yi ci la bàyyi ko kon dagg nañ foofu yaa alwaalidaani yaari waajur ya yar dayaani danañu gërëm alil wala di walis doom ja albaari jee aji baax radiya yarda moom dañ caa jokk alifu ñaar ak noonu gi nga xam ne moom la rafaay ndax lim doon mudaari moom moom nag alif ga ci mujjoon dañ koo soppi muy yaa yarda alif la woon ñu wëlbati nag alif ga muy yaa fekk na yaa ga itam kat ci waaw la bàyyi ko woon ndax radiya daa bàyyi ko woon ci radi wa gis nga sax boo ne ridwaan waaw ga dellu si anti yow jigéen ji tax chey na da nga ragal allah yàlla dafa nekkoon tax cha biñ ci jokk nag yaawul mu xaatabati ñu dagg alif ga nga xam ne kon tax chaay na la woon dagg alif ga biñ ci jokk yaay ji noonu gi nag moom ne rafaaye boo xoolee yaadoona ba topp ci attala miisu day mu daari mu ràgge woon waaw xaddaa yaadoo booy jokk waaw mbooloo mu góor du amul soppiku da ngay dagg rek waaw ga fa nekkoon daal di jokk waaw gi faaxil bi ak na bay doon lam rafaaye la jiitu waaw ga nag maas maas ko lonk moo ko def yaadoo na yus diina dafa ràgge woon yaa boo ci jokk noonu nisbati doo ca soppi dara nam nekk woon yus di da ngay jekki-jekk jokk ci na rek yajriyaani dafa nekkoon yajri ràgge woon yaa booy jokk alifuk ñaar te alifuk noonu su ko defee nag aligu faaw la ko jiitu moom da nga koy maas yet maanaam maas ak fataa ndax nga mën a jokk alif yardayaani dafa nekkoon yardaa dane woon mu daari mu bu ràggee alif da nga bëgg caa jokk alifuk ñaar faaw da ngay wëlbati alif ga muy yaa moo ko def yaro bayaani tax shay na day mudaar mi nga xam dafa ràggee woon alif nga ci jokk yaa ul muxaatabati dane woon da ngay dagg alif ga mu set te nga bàyyi fataa ga ko jiitu woon mu nekk fa ba tey moo ko def tax xëy na moo tombeek anti tas xëy na jee nga waxoon anti yow jigéen ji tax xëy na da nga ragal allaha yàlla yaa banaatu yéen xale yu jigéen yi uddu noona jege leen minal fadilati ci ngëneel uddu noo dafa ràgge woon waaw kooku nag boo ci jokk noonu niswati doo ca soppi dara lu may jokk rek na aja nga xam ne udd noona moo ko udd xoona jee mu andi woon ca biir muy lamar yi mbooloo mu jigéen mi ngay wàqanteel ñoo yemoo dane yéen xale yu jigéen yi dee leen jëme jege ngëneel ak lu baax di ko sàkku di ko wut ur ji yaakaaral moom mook daxaa jee nga weesu woon ci gannaaw ba ngay diggal jenn jigéen di muy ubbu xii nga maas ko lonk am sa gi moo gën a jàppandi ci yow waxoon naa ko baa ca tolloo nga ne ur ji yaakaaral yaa Fatima te yow Fatima wala tan say te bul fàtte ne àndal amala nag mébét nuurul xayaati mooy leeruk dund ga Fatima rafetal njort ndax kat dund bu fekkee amoo ci yaakaar dara dara day daal di naqari boo xat doo xajati ci àdduna waaw rek nga am yaakaar rafet njort wala tan say ji wax tan say day mudaarif bi nga xam dafa ràgge woon alif ndax tan saa lay nekk bu dee mudaarifum genn góor nga ci jokk nag yaawul mu xaatabat dane woon da ngay dagg alif ga ba noppi la ko jiitu nga bàyyi ca fataaga moo tax tan say na la woon bi nga koy jasam ak laayu naxaw ji nag noonu nga dagg mu des wala tan say ka ànnal xaramay ni daanaka yaari pyramide ya axasa jàpp nañu xal dëxri jamono ji axadan kóllëre allah yab la yaa ci ñu bañ a ràpp mukk ñaari pyramide ya maanaam ñaari tabax yi waa misra yu njëkk ya doo xam ne daal moom dañoo wëlëranteeg jamono ba jamono ne leen lu yàgg-yàgg yéen duma leen ràppal maanaam lu yàgg-yàgg du ngeen màggat da ngeen di bees rek di wéy allah yabla yaa jee lay wax ne dafa nekkoon baliya yablaa nga xam ne alif moo ci mujjoon ca mu daarihuma nga ci jokk nag alif ñaar su boobaa alif ga da nga koy soppi muy yaa moo ko def allah yabla yaa dañoo dagg noonu ba nag ndax mu daarihu la waaye daa toll ci bérébu na sab ndax an bi ci nekk dañ jokk ko ci dañ sàdd ko ci laa ji muy allah te fekk na an laa la woon at tamrin athani ma shaklul xarfi lan mooy mask ak araf wa allësi wa nga xam ne qabla waawil jamaahati nekk na njëkk waawu mbooloo mu góor ma wallësi ak wa nga xam ne qabla yaa'il muxaatabati nekk na njëkk yaa'il muxaataba fi kulli fi'lin ci bépp fi'al min al afxaali ci fi'al yi al aatiyati ak jikk wa ma sababu shakli ak lan mooy sababu mask ga dalay laaj ba xam wax yi muy bëgg a indi fi'al ya nga cee séen te ñu jokk ca waawul jamaahati mbaa yaawul muxaatabati la jiitu waaw ga ana luñ koy maas ak la jiitu yaa ga ana luñ koy maas boo waxee lañ koy maas it neel nangama tax ci ki bu ñu nee imdo wéy leen ilal gaayati jëm ci dayo ba tan joo kon ngeen mucc minal xaybati ci tasug yaakaar al xaybatu ci xaalonk moom la ñu firee sooy ci wolof bala maa jàll nag sax naa la leeral ne la imdoo ak iqdoo jëli nga wees woon ci gannaaw ñoom dañoo nekkoon man xoosum yaa maanaam mada yamdi ak xada yaqdi boo ci defee am sa waslu gi da nga koy kasara bokkut ak daxaa yadduxoo nga ne ca udduxoo woote leen kooka moom dafa nekkoon man xoosum waaw nga xam ne bu dee ku jàng tasrif day xam ne xëyin ba dafa dàmmoon boo ci defee am sa waslu da nga koy dàmm ne udduxoo waaye nag mada yamdi qada yaqdi moom seen xayin dafa kasra woon tam gi nekk ci li njëkk waaw gi waaw gee ko waral rek kon na ngay wax imdoo li njëkk waaw gi dañ koo maas maas ak lonk ndax dañ ne woon lamar ja bu fekkee yaa moo ci mujj woon ca cosaan boo cay jokk waaw mboolu mu góor ba dagg yaaja na jëkk waaw ga da nga koy maas maas ak lonk moo ko def im doo tan joo nag day mu daarihuma ràgge woon waaw ndax najaa yan joo lay doon booy jokk waawul jamaahati da ngay dagg waaw ga fa nekkoon jokk nag waaw mboolum góor mi te la ko jiitu dàmm nga xam ni tan joo ji dañ ko jasam ci jawaabi lamar ji maanaam fihilul mudaarihun la majzumun bi jawaabil amri ndax dafa nekkoon tan joona dagg nañ noon nga waaw gii fi nekk faaxilam la al abutaalu jàmbaar ya yax faw na danañu làqu xindal xamaxi fa xemmem nga waaye abbu doona dañuy feeñ xindal fasaxi fa tiit ma maanaam jàmbaar yi bu am tiit amee ak jafe-jafe dañuy feeñ ñëpp xam leen ñu fës góorgóorlu ca ndax yëkkati njàqare maag tiit ma te nag bu fekkee day xeetu njariñ rek bu ñuy xemam ak yootu ñoom duñ ci am soxla dañuy làqu waaye kenn du leen gis yax faw na boobu dafa nekkoon yax faa ràggewoon alif kooku nag doo ci jokk waaw mbooloom góor te nga dagg alif ga te fataaga ko jiitu woon nga bàyyi ko fa moo tax ñu maas yax faw na ba tey yebbu doona dafa ràgge woon waaw yebbu doona tey mu daal di ma ràgge woon waaw nga cay jokk waawul jamaaxati kooku nag mu daal di xumaa da ngay dagg waaw gam ràgge woon jokk ci nag waaw gi war a nekk faaxil ak na bay nekk mandar nga mu rafaama muy noon nga te nag la jiitu waaw ga nga bàyyi ko maas maas ko lonk moo koy def yàbb doona ijji nii na nga wat sama araatil xilmi meññeti xam-xam ay yetuxal fataatu yow bile xale bu jigéen waxa nay te nga doyloo wala te nga taqoo bil xanaaxat ci doylu war nii te nga ja ilal xulaa jëm ca kaw wala jëm ci kawe ya ijji nii na nga watt ci njëkk andi day wàqanteeg ay yetuxal fataatu nga xam ne kon dañ cee jokk yaa ul muxaatabati ci lamar bi te fekk mu ràgge woon yaa kon ba daggee yaa ba nga xam ne moo fi cosaanu woon ba jokk ci yaa bii nga xam ne wàqantegee ko andi te mooy faayil la jiitu yaaga day kasara soo ñëwee ci wax nay nag moom daa bàyyi ko ci xaniya yaxnaa nga xam ne moom dafa ràgge woon alif booy digal jigéen ji da ngay dagg alif ga te bàyyi fa tàgg ko jiitu woon nag nekk fa ba tey moo tax nga ne wax nay ur nii nag moom mook uddux yi na nga woote ñoo yemoo ranaa jana mooy xool jàkk yarnoo dana ja day ràgge waaw kon nag boo ci indi la mari jenn jigéen ji ngay wàqanteel faaw da ngay dagg waaw ga fi cosaanoo woon te nag boo jokkee yaa gi la jiitu yaaga na kasara moo tax nga ne war nii mu yemoon teeg uddux yi bu fi waaw nekkutoon uru nii ngay wax at tamrin at taalis as nit da yóoral fii jumalin ci ay jumla mufidatin kulla fi'lin min al af'al al atiyati ila dama'ir raf'i al barisati allati tattasilu bi fi xal yow mi bëgg a indi muy yash fii dana saafara yaaloo dana kawe imshi doxal yar mi dana sànni asri déglul maanaam bàyyi ko ci lu baax yi moom asri lay doon fu na nga jéggale yii nee na fexal bu ci nekk jokk ci mboolem damiru rafaa yi fés te man cee jokk ba noppi nag ku ci na nga jàll ba mat jumla bul yem rek ci def ko moom fexal bi rek bàyyi at tamrin arrabia xaati bu na nga wàqanteeg bin xibaarati ci wax ja al aatiyati ji aj dikk al mufradata kenn ka al mu annasata ka di kuñ jigéenal wal musanna ak lañu tasniya mbaa nga ne ak tasniya rek wal jam ak jamoo bina waxañ yi ci ñaari façon ña wax ji ngay séen dañ ci waxante genn góor muy anta yow góor gi taraqaa da nga yéeg wa tas moo te nga yëkkatiku wa tanaalu te ngay am maa la nga xam ne tabb tax yi da nga ko sàkku lépp kat bil jiddi ci farlu wal adabi ak teggiin farlu te ami teggiin mooy tax nga jëm kaw am lépp loo doon sàkku di ko bëgg mu ne léegi nag dañ cee wàqante génn góor yow nag wàqante ceeg jenn jigéen wàqante ceeg ñaar wàqante ceeg mbooloo mu góor wàqante ceeg mbooloo mu jigéen bu dee jenn jigéen ngay wàqante lay doon anti tar xay na wa tas nii na watanaa lii na maa tabb tax yi na bil jiddi wala adabi nga xam ne tarqaa boobu dafa ràggi alif booy jokk yaawul mu xaatabati da ngay dagg alif googu te bàyyi fataa gi ko jiitu woon mu nekk fa ba tey nga jokk yaaja te maas ko maas ak néeg jokk na ba nga xam ne itam moom mooy doon màndargam rafaama nga ne anti tarqay na wa tas moo jooju nag gis nga dafa ràgge waaw boo ci wàqante genn jigéen da ngay dagg waaw gi fi nekk te nag la jiitu waaw ga nga kasara ko nga moo tax nga wax wa tas mii na tanaa lu moom daa wér ngay jekki-jekki rek ne tanaa lii na te bu tax yi dafa ràgge yaa su fekkee da nga ci jokk yaa ul mu xaatubati da ngay dagg yaa bi fi nekk su ko defee nag jokk ca yaa ak noon yaaga nekk faaxil bi ndax li muy jigéen ji ngay wàqanteel na ba nekk màndargam rafaama nga ne tabb taxiina nga xam li jiitu yaa gi moom day kasara booy wàqanteeg ñaar nga ne antuma tarqayaani wa tasmuwaani wa tanaalaani maa tabb taxiyaani bil jiddi wal adab da nga ne woon ku mel ne tarqaa ràggi alif booy jokk alifuk ñaar alif ga fi nekkoon da nga koy soppi muy yaa nga door a jokk alifuk noonu nag ndegam fii lu mu daarif la moo tax nga ne antuma tarqayaani tas mooy nag moom daa ràgge waaw da nga ne woon booy jokk alifuk ñaar doo soppi la fi nekkoon xanaa rek nga mas waaw gi mas ko yet jokk ci alif ak noon mu nekk wa tas muwaani tanaalaani moom daa wér bu la jaaxal tab bu tax yi day mu daarihu mu ràgge yaa boo ci jokk alif ak ñaar moom it du am ak soppiku lu may maas yaa ji jokk ci alif ak noon rek ndax li muy mu daarihu muy wa tanaalaani maa tab bu tax yaani bu dee mbooloo mu góor nag nga ne antum tarqaa boobu mook tasxaa ñoo yemoo nga xam day mu daarihu mu ràggi alif ni ma ko waxe woon léegi boo ci jokk waawuk mbooloo mu góor da ngay dagg alif gi te bàyyi fataaga fu nekkoon nekk fa ba tey nga ne antum tar xaw na su ko defee fee nga ne watas moona mu yemoon teeg watadd xoona watanaa loona maa tabb taxoona bil jiddi wal adabi kon mbooloo mu góor na ngay wax antum tar xaw na wa tas moona wa tanaaloona maa tab daxoona bil jiddi wal adab bu dee mbooloo mu jigéen ma nga ne antun na tar xay na wa tas moona wa tanal na maa tab taxiina bil jiddi wal adab am nga tarqaa dafa ràggi alif boo ci jokk noonu niswati nga wëlbati alif gi muy yaa nga jokk ci na anak muy antunna tar xayna tas moo moog tàdduxoo ñoo yemoo boo ci jokk noonu niswati doo ci soppi dara day nekk rek wa tas moona mel ne mu yem ak tàdduxoo na ba nga weesu woon tanaalu moom da ngay wax watanal na maata bu taxina moom dafa ràgge yaa boo ci dee jokk noonu niswati du amul soppiku na rek ngay jokk muy tabbu taxina nga jàll si ci at tamrin alxamis xaatit na nga wàqante bil xibaarati ci wax bi al aatiyati al mufra data al mu annasata wal musanna wal jamha bi nawxayhi at ni na nga tagg xalaaman ca ka nga xam ne manaxaka may na la wasfu te nga sell xarit li man ñeel ka nga xam ne sadaxaka dëggalal na la warxa te nga sàmm man ka nga xam ne wadaxa teg na fii ka ci yow rajaahu yaakaaram dañ cee wàqante genn góor ku la may na nga ko tagg ku dëggu ci nam la jàppe yow it na nga dëggu ci na nga ko jàppe sellal sa xarit ak moom ku la yaakaar na nga sàmm wóolu gëm la wóolu yaakaar la te bañ a tas yaakaaram ne loolu wàqante jeeg genn jigéen ak ñaar ak mbooloo mu góor ak mbooloo mu jigéen ba xam nu muy doon bu dee genn jigéen ji ngay wax ne as nii na nga tagg mu yemoog ab di da nga weesu woon xalaa man mën a xakki was fii mu yem ak udd xii da nga weesu woon li man sadaxa ki war xay ndax kooku dafa ràggi woon alif ngay dagg alif ba daal ci jokk yaawul mu xaatubati mu nekk war xay man wadaxa fii ki rajaahu kon day nekk as nii xalaa man manaxa ki was fii li man sadaqa ki war xay man wadaxa fii ki rajaahu bu dee ñaar ñi nga ne af niyaa xalaaman manaxakumaa wasfuwaa liman sadaqakumaa war xayaa man wadaxa fii kumaa rajaahu bu dee mbooloom góor mi nga ne af nuu tagg leen xalaaman manaxakum wasfu liman sadaxakum warxaw man wadaxa fiikum rajaahu bu dee mbooloo mu jigéen ma nga ne af niina tagg leen xalaaman manaxakunna wasfuuna mu yamanteeg uddu xoona da nga wees woon ca misaal ya wasfuuna liman sadaqakunna war xayna mu tombeeg is xayna ja nga weesoon foofu war xayna man wadaxa fii kunna rajaahu nga xool at tamrin assaadis def ko xool ba tey at tamrin assaabian def ko al mujarradu fi xaal bu ñu raflee ci ndolleen wal masiidu ak bu ñu dollee al awal mujarradu sulaasi mooy bu ñu raflee li sulaasi wa masiduhu ak lañu dolleen day njëkk wax nag fexeel bu nekk ñetti araf bañ ca dolleegut ak buñ ca dollee nu muy mel mu njëkki nag al amsilatu fahima dégg na at tilmiidu élève ba ak darsa leçon ba fahima mooy déggu xam muy comprendre samiha nag mooy dégg na déggu nopp boo xoolee ci kanam mu bind afhama déggal na al ustaazu ustaas ba ak tilmida élève ba xamala sëf na al jamalu gëléem ga al xutt na wateen wa gëléem gi sëf na wateen fee ci kanam lañu wax xamala sëfloo na arrajulu waaji aljamala gëléem ga laxi ba fona alwala du xale ba feeñu ne laaxa ba foxante naag alwala du xale ba axaaxu mbokkam dafa xajiñ na almaaw ndox ma asafina te gaal ga ndox mi moo ba max gaal gi feeñu ne in dafa xa jiñu na jiñu na almaaw ndox ma rafaxa yëkkati na aljun diyu soldat ba arraayatu drapeau ba feeñu ne irtafaxat yëkkatiku na arraayatu drapeau ba xamira xong na alwardu fleur ba wala rose ba ñu ne eh marra xong na alwardu rose ba bala ba dóor na arrajuluwaa ji assaariqa aji sàcc ja ci kanam ñu ne tadaara ba dóorante na arrajulaani ñaari waaye xasana rafet na mooy neex na aljawu jaww ji feeñu ne taxassana rafet na aljawu jaww ji ba tey neex na rek